maa ngi wax léegi ni dans le cadre ci programme ministère bi nga xam ñun lu ñuy tënk lu ne ñuy planifier at bu jot bu ñu defee li nga xam si ñepp ko bok ci ministère yi muy li ñuy wax document de programmation pluriannuelle des dépenses ñu defaat bañ cee teg bu ndaw ba di projet annuel de performance ba nga xam ni si ñaan yi yëpp yóbbu nañ ko assemblée ñun ba paré parce que jot nañ suñu crédit yi ñu jox pour l'année N plus 1 muy année 2023 bi di ñëw dañuy dajaloowaat nak chaque année avec le ministre def le bilan ci li nga xam si mooy année bi jàll ubbiwaat ay perspectives ci année bi de manière opérationnelle. loolu nag ñu koy féetalee journée boo xam si l' ensemble des projets de programme ci lañ koy xool loolu moo ñu dajale tey jii monsieur le ministre ubbi léegi jataay bi wax ko fa invité nag socio service bi mu rappelee ba tey.

liggéey leen ensemble pour que ensemble véritablement ñu mujj atteindre les objectifs parce que loolu ñuy liggéey kat dafa nekk loo xam ne si à la fois dafa baax parce que tey jii bu ñuy wax loyer cher na bu ñuy wax également développement économique et social mënoo bàyyi l' impact de logement loolu moo gën a war a tax mu ñaax ñëpp ñuy remercier également l' ensemble des services remercier na leen aussi def ko parce que nit ki booy liggéey ak moom. lu mu gatt gatt gàtt tey bu fekkente ni da nga japp ni sax atteindre am na lu def la def na jarna na gor te je pense que ku gis secteur bi ni muy doxee xam ni wax deug yalla gars yi jàmbaar lañ xana rek di leen ñaax parce que en vérité président de la mom ci bopam moko waxal bopam dañu war accélérer les choses parce que la demande elle est toujours présente di wax ni rek am na nag benn projet bo xam dafa geuseuf gëna fess ci kër gi muy projet 100000 logements projet bobu nak mom lañu ñu ci lepp tey jii particularité waxtaan bi gëm naa ba gëm ni fa lay gën a orienté wu malgré que yeneen projet am nañ solo di ci wax rek ni mbir boo ko amee ñu jox la ko da nga bëri loo xam ne si danga koy def lool administration moo tëddee noonu muy li ñuy wax stratégie il faut nga réfléchir dans sa stratégie ça nous l'avons fait boo réfléchir ci stratégie ba pare il faut nga mettre en place gouvernance gouvernance mooy maanaam ay structure ak ay nit ak ay procédures yoo xam si maintenant yooyu nag fi da nga koy bâtir mu jeex lolu ce nañ ko ci projet bi biñ ko jeexalee paré nak lan moy fonds aménagé parce que bala nga tabax que nga fam souf aménagé lolu aussi deux ans ci lañ je aujourd'hui wallahi lazim ñi ngi jitu jëm ni ci kanam touti lepp na sorti lolu nañ mais dañ ni attention ñun kat duñ toog di xaar loolu pare nañ tàmbali commerce nañ tàmbali construction construction itam wax dëgg yàlla ku ne gis na ni ubbi nañ ay chantier Mbambilor ubbi nañ ay chantier Kébémer ubbi nañ ay chantier Kaolack Fatick mun naa li yeneen chantier yoo xam ubbi nañ ko di wax rek ni baral bi nga xam si son excellence wax nañu baral ko ñi ngi ciy dox dox ci nag moo tax bi ñu songoo signé ay convention ak promoteur privé yi continuer liggéey bi ak promoteur public yi ñu ni nag baral bi day laajaat aussi ñu xool ñeneen ñu ne ci biti ñooñee tam ñu ngi ci avancé gis ngeen bu baax ñu dajeek ñoom te ci fan yu néew danañ finaliser convention yeeg ñooñu j'en suis sûr 2023 la ko tàmbaleeg ko fayal bu soobee yàlla dinañ yàgg a gis son excellence monsieur le président de l'Afrique ak monsieur le premier ministre ñuy remettre ay clé ak di wër di inaugurer ay logement